wal uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu nuyu mbokki taalibe yi ñu fekk yëpp xam naa ne suñ Seydina Omar Ba moo ñu force kàddu gi rek waaye dañoo ñëwoon ngir ngir wax dëgg yàlla euh, barkeelu ci bis bi ak jaajafal ak leen ndokkeel leen ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw ngeen ko ci. Euh, liggéeyal Sëriñ Tuubaa rawat na ci xam-xam muy liggéey bu am solo bii nga xam ne andil ngeen ko yoonu murit mooy téere bi nga xam ne seq nga nga ko ak suñu xarit suñu wëllëre di koo xam ne comme ni nga ko waxee léegi rek dañ koo sopp lool te du lu yàgg nag ndax euh, defe naa ñaari at ci ginnaaw rek muy 2019 bi ñuy taxawal fii màggal daaru màggalu daaru salaam moom lii moo doon animé conférence bi keroog bi màggal gi jàllee euh, ci laay waxtaan ak moom ci naan ko man lay dama amoon yéene liggéey Sëñ Tuubaa ci bind keroog nam ma ca soññee yemul rek ci soññ ma ci waaye damaa jox ay document d'archive yoo xam ne bokk na ci li nga xam ne appuyé wu ci pour bind sama ouvrage bi nga xam ne moom laa ñëwoon fii ñaari semaine wala ñetti semaine ci ginnaaw doon ko ko gaaral doon ko présenté euh, muy nit ku baax koo xam ne euh, fu ma taxawal fes ko fu ma fu ma taxawa fesal ko fa ne moom bokk na ci samay principal source ci lépp loo xam ne dama koy bind wala ma koy wala ma koy wax te mu jëm ci euh, archive ci yoonu murit bari na sax loo xam ne euh, lu may lënt lay doon yenn waaye sama xel du dem ci kenn pour moom te su ma ko wooyee dina jël temps leeral ma lu baree bari kon ñu ngi lay santaat bu baax a baax di la ndokkeel ak Seydina Omar Ba ci livre bu am solo bi yi nga xam ne moom ngeen bind mu jëm ci euh, jubbanti wala tontu professeur Rawane mbay ci ay njuumte ya nga xam ne defoon na ko ci thèse bi nga xam ne moom la doon bind defe naa ci année 80 la woon ci année 70 euh, te mu indi woon ci du wax sax ne ay ay ay njuumte waaye am na ci loo xam ne ak tayeef la am na ci loo xam ne ak tayeef la am na ci loo xam ne comme ni ko Seydina Omar waxee léegi rek manque de rigueur scientifique la ndax nit ki booy booy bind fa am yoo xam ne danga ko war a sàmmoonteel critères yooyu bokk na ci maanaam nga fexe ba li ngay bind nga am fu foo ko teg foo xam ne ay delluwaay la yoo xam ne kuñ la laajee rek yow mën ngaa dellu foofu te dafa mel ne moom bokk na ci li ñu gën a seetlu ci ci mbindam mooy manque de rigueur scientifique waaye nag la ba ñu amee ay boroomi xam-xam yu mel ne yéen ñoo xam ne indi ngeen ay jubbanti ci wax jooja ba képp koo xam ne tegoon na ko dëgg wala képp koo xam ne amoon na lu ko lënt ca wax jooja tey jii bu liiree livre bi nga xam ne moom ngeen ñu indil tey defe naa ne dina dina dina dina dina gindiku te lépp nag ngeen teg ko ci fu wóor ci ay argument te damay wax ne yoonu murit ñun euh, xawma lu ñu manqué waaye du du du force d'argument ndax dañuy wax ne euh, force d'argument moo gën argument de force euh, te yoonu murit ñoom xawma lu ñu manqué waaye dooy argument ndax bind ma jàngaleem Sëriñ Tuubaa rek ñu ci delloo dañuy met ay argument yoo xam ne képp koo xam ne attaqué na sëñ bi rek wala képp koo xam ne wax na naka sudul noonu ci yoonu murit dañu ciy mën a dellu ngir ngir ngir mën a jubbanti lool te noonu ngeen def tey jii te comme ni nga ko waxee léegi rek amul fenn foo xam ne donte donte tubaab yi ñoom régulièrement dañuy génne ay ay ay ay archives yu jëm ci yoonu mu murid wala yu jëm ci sëñ bi waaye ñoo génne benn document d'archive boo xam ne boo ko liiree di nga di nga di nga dar kon nag loolu rek lu mat a sant yàlla la ba barki démb rek euh, maa ngi dem boobe boobe nga xam ne dans le 60 la la nekk soriwul pare noonu gis fa benn rue boo xam ne rue des Mourides lañ ko tuddee rue des Mourides euh, bi ma laajee ñi nga xam ne ñoo dëkk ci rue bi ne leen Mouride gi gan Mouride la xamuñ ko ñoom ci laa dem directement ci ci commune bi laaj leen ñu jox ma ay références yoo xam ne ba ma ci delloo li ñu ma bi ma creuser ba ba li nga xam ne moom laa découvrir mooy nekk euh, li tax ñu tudd ko rue des Mourides mooy dans les années 40 euh, Mouride dafa am contribution boo xam ne dañ ko defoon ngir jàppale ko français léegi nag ngir rendre hommage Mouride yi. ñoom ñu jël riz boobu daal leen koy tudde nga xam ne loolu man découverte bu bees la bu ma bu ma defoon mosuma ko woon gis fenn mosuma ko woon a dégg fenn euh, te bari na yu mel noonu te lu ñuy gën a dem rek ñuy gën a découvrir découvrir lu bees kon ku ci mel ne professeur Rawane Baye bii nga xam ne ñoom lu négatif rek la ñuy xool ci yoonu murit defe naa ne war nañoo xool tamit aspect yu yu positif donte dañuy dem sax yenn saa yi bay bay sos ndax fan yi am na benn lettre bu doon circulé ñu bëri ci salafiste yi di ko jël di ko partagé lettre bi dañuy wax ne Sëñ Tuubaa bind te biir lettre bi boo ko xoolee dafa mel ne Sëriñ Tuubaa da ci eh, fekk booba tubaab bi dañ ko convoqué booba wax mu ban la ci convocation yi waaye tubaab bi dañu ko convoqué ngi ci tees bi waaw nga xam ne ñoom dañuy dañuy dañuy eh, muy wane ne maanaam ci biir lettre bi ñu ciy wane ne Sëriñ Tuubaa da doon da doon da doon dafa joxe woon gàtt mi ngir wane woon ne dafa dafa tawatoon boobu te lettre bi boo ko xoolee maanaam style bi ñu ko bindee waxuma la fond bi rek ndax Sëriñ Tuubaa moom ku ne xam ne moom mësuta dellu ginnaaw ci diggante ma mësula wane benn faiblesse ci diggante ak tubaab bi ndax ngor ak fit goo xam ne suñu borom mayoon na ko waxuma la fond bi waaye forme bi rek boo ko xoolee ak style bi nga xam ne ci lañ bindee lettre bi boo xoolee boo xoolee style bi rek xam ne lii nu bindal suñu tubaab ndax ñi nga xam ne sax mën nañoo mën nañoo maanaam identifier nit à travers son écriture waaye style bi nga xam ne ci lañ bind lettre bi boo ko xoolee rek xam ne lii du logique du mbindum kon ñoom yu mel noonu rek lañuy lañuy lañuy la ñuy xool ngir gàkkal yoonu murit nga xam ne waxuma la sax euh, di jéem a gàkkal euh, yoonu mu par tous les moyens waaye dañuy dem sax yenn saa yi bay sos kon nag euh, sant nañ yàlla bu baax a baax ci bi ñu amee ñu mel ni yéen ñi nga xam ne ñoom lépp lu ñu laal rek yéen ngeen ngeen làlli ko te tey jii damaa gëm ne man euh, maanaam saa suñu tonte saa suñu attaqué ci ci ci ci xam-xam rek ñun ci xam-xam lañu war a tontu maanaam dëgg la am nañ am nañ am nañ am nañ maanaam am nañ force bu mag a mag a mag ci wàllu am nañ maanaam capacité de mobilisation bu mag a mag waaye jàpp naa ne anam bi gën a simple sax wala anam bi gën a adapté ci tontu yu mel nii mooy tontu tont ci xam-xam ndax comme ni ma ko waxee léegi rek ñun manqué wuñ ay ay argument te Sëñ Tuubaa ci loolu rek la nekkoon bi ko tubaab bi euh, tuumaalee ne dafa dafa bëgg def jihaad dafa bëgg utiliser violence ngir dal seen kaw gis nañ nam tontee ci xam la xamal leen ne moom suñu borom da ko da ko da koo bind ngir lan ngir jaamu yàlla ak ak xam-xam maanaam jihaatam da ko orienté jëmale ko ci jaamu yàlla ak xam-xam waaye jëmalewu jëmalewu ko ci ci violence gisoo loolu Sëñ Tuubaa yemul yemul ci théorise ko waaye da koo pratiqué ba ñëpp teg seen bët Sëñ Tuubaa ku xam lu toll quantité quantité bi nga xam ne moom la bind te mosuñoo gis ci histoire ku bind lu toll noonu defe naa ne loolu ab réponse la ci euh, tuumaal gi ñu ko doon tuumaal ci utiliser violence ngir tontu ngir tontu tubaab bi te defe naa ne ci dynamique boobu rek la yoonu murid agsi ba fi may waxee yow yéen nii ndax Sëñ Muntaxa euh, gis nañ ay ñaari at ci ginnaaw rek bi ñuy inauguré Masaalikul Jinaan bari na ñu doon wax naan yoonu murit dafa mel na xamuñ priorité ndax ay jàkka lañuy lañuy lañuy lañuy lañuy la ñuy tabax te jamono joo xam ne nit ñaa ngi xiif waaye gis nañ ñaari at yi bi crise bi déclenché ak léegi suñ suñu mën taxaa taxawaay bi nga xam ne am na ko ci ci réew mi kon yooyu xeeti ay euh, réponse la yoo xam ne defe naa ne foofu la jamono toll tey moo tax yoonu murit moom du du ñu bëri xëy na ni ñu ko jàppee waaye euh, confrérie d'action la boo xam ne Euh, loolu la suñ tubaab bàyyi ci la si ci la si mën taxaa nekk kon nag ñun ñëpp ci la ñu war a tënku waaye ngalla bi ñu amee ay borom xam-xam ñu mel ni yéen yoo xam ne yéen a ngi bind di jooyante nit ñi nga xam ne seen xam-xam dafa gàtt ci ba ba mu leen di poussé ñu indi yoo xam ne du du lu wér ci ci yoonu murit kon ñu ngi santaat bu baax a baax a baax di wax ne ñëw nañ ci euh, suñu suñu jëmmi bopp ñëw nañ ci suñ teewaay bopp ndax loo xam ne seeq nañ ko génn waaye ñëw nañ tamit ci turu daayira Daaru Salaam bu Paris bi nga xam ne suñ mbaygee si la mi xam na leen muy euh, kóllëre gu bu goo xam ne dox na diggante ñoom ànd ak suñ Sidi Ndiaye mi nga xam ne defe naan du ku ñuy présenté ci dëkk bi suñ Sidi Ndiaye xasida ak suñ Mbàkke Ndaw jëwrin daay suñ xabaan tamit euh, moom suñ fàllu euh, moom it yabare nañ fi suñ xaadim bajaan mi nga xam ne mooy jëwriñ bi moom lañu àndal ñu ñëw ngir ndokkeel leen ci ci liggéey bi waaye nag ñaanal leen ngir ngir mu sax kon ñu ngi santaat bu baax a baax Euh, waa Jaawartulaa ñoom it di leen ndokkeel ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne defe naa ne répétition lay doon rek ndax ñaari semaine ci ginnaaw rek maa ngi wax seen taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ci dëkk bi rawat na ci wàllu xam-xam te damay wax ne Sëñ Tuubaa lu ñu patrimoine bu gën a am solo xam-xam nag yéen yéen a ngi liggéeyal Sëñ Tuubaa fépp waaye yéen a ngi liggéeyal Sëñ Tuubaa ci xam-xam ne lii preuve la ci ndax euh, suñu béygee si la muy taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw ngeen ko ci ci téeram bi euh, suñu téeram bi tamit taxaw taxaw boobu ngeen ci ngeen ci amoon defe naa ne loolu rek firnde la ci euh, liggéeyal Sëñ Tuubaa gi ngeen liggéeyal Sëñ Tuubaa ci anam yëpp rawat na ci xam-xam kon ñu ngi leen ci santaat baax a baax di leen ñaanal ngërëmu Sëñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullah waaw kon xam